yàlla dootu ci ñaanam bu lekkut lu dagan wala ne it pour doomu aadama am kattan di def lu baax foofu muy lekk lu dagan ndax lu dagan ak jëf ju baax dañoo lënkaloo lekk lu xaraam jaamu yàlla daf koy të an abi hurayrata jële nañ ci abu hurayrata radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm qaala wax na ne qaala wax na rasulullahi yonent yàlla bi salli yàlla na ko allah alayhi wasallam dole ko musa yonent bi nee na inna allah naka yàlla taala kawe na tayyibun aji teey la laa yaqbalu du nangu illa tayyiban lu may aji teey yàlla lu teey la du nangu lu mooy lu teey loolu waral lépp lu yàlla xaraamal rek dafa teewut doomu aadama nag ñaar la xam ak jëmmam lépp lu yàlla xaraamal benn muy lor ruuxu wala muy lor jëmm mu tax yàlla xaraamal ko benn njëriñ nekkut ci si njëriñ nekkoon pour yow kon yàlla daf koy daganal mais lor moo ci nekk pour yow <clears throat> yàlla nag ku teey la bëggul ci jaam yi lu mooy lu teey loolu rek mooy wax ci moom ci boppam teey na ba pare kon yow boo defee lu teewu di sa bopp nga koy def parce que moom mënoo ko mënoo euh, dugal ci moom loo xam ne nekkut fa moom tey na ba pare moom borom bi subhanahu wa taala ku tey la na bëggul ci jaami nag lu may lu tey loo mooy laa yaqbalu illa tayiban moo tax ku jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne nii yàlla santaanewut ko du ko du ko nangu parce que loolu teewut lam tëral mooy lu teey moom mooy ku teey lam tëral di lu teey boo fa teggee lam tëral nag mënoo dugg lu mooy ci lu teeyut loolu du la ko nangu maanaam bëggul la loolu soo ko defee musiba nga ci jëre yàlla ku teey la bëggul lu mooy lu teey wa na laa naka yàlla <coughs> amara digal la almuminina jurit ñi bi ma amara cëram digal bii ci moom almursalina yonent yi li war yonent yi loolu rek moo war jurit ñi nga léeg-léeg nit day wax ne man mënumaa roy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que daf maa a garaat ab yonentu la man du ma yonentu déedéet bi sallallahu alayhi la ko yàlla sant mu di ko def loolu la la yàlla sant dafay fa roy kaay yonentu lu dara lu mooy nit koo xam ne nii mooy exemple bi nga war a roy <coughs> boo ko roy it koy roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla nee na am ngeen roy teef bu rafet ci yonentu yàlla bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi ci ñu royu kaay lañ dañuy xool ñoom ñu doon dundee dañ doon fàggoolu dagan dañ doon moytoolu xaraam la leen yàlla sant ñu xam ne ñu nit yoon woo war a jaar jaamu yàlla topp ndigal yi bàyyi tere la yàlla digal yonent yi moom la digal mboolem ñu gëm mboolem ñu gëm def la lan yonent yi def rek dëkk ak ñoom moom xiyaamati di soppab yàlla it wa qaala taala yàlla mu koy mu ne yaa ayyuha rasulu eeyam yonent yi ku loo lekk leen mu ne tey baati ci yu teey mooy dagan yi bu ngeen lekk lekk leen ci lu dagan yi loolu nag làmboona ñaar yëpp làmboona def leen lu baax làmboona lekk leen ci yu fii nag ci yonent yi daf ne yéen yonent yi lekk leen ci yu dagan yi ndax yonent yi ñoom seen ruux duñ ko dundalee mukk lu xaraam ñoom yàllaa leen xaar moo tax tegu si waamalu saa leen def leen lu baax dégg nga man ñëw si hadis bi hmm? de ngeen def lu baax loolu la waaw moo tax ñaari maqaam yi ñëw lekk leen ci yu dagan yi ngeen def lu baax jëmm ji mooy lekk ci yu dagani def lu baax mooy dundal ruuxu gi kon ruuxu gi ne lekk ci yu dagani te mooy mu def lu baax jëmm ji mooy dundee matière yi na lekk lu dagan yaa rasulu kulu min teebaati wa amalu saalihan wa amalu nag moom yonent yi foo ñu def ko yàlla leen bindee noonu mais ñun war nañ leen roy ci wa amalu yéen yonent yi lekk leen ci teey yi mooy seen jëmm na lekk lu dagan boo defee seen ruuxu na def lu na ngeen def lu baax seen jëmm mu dundalee ko ruux gi jëmm ji it na lekk loo xam ni lu dagan la lu tax yàlla lëkkale lekk lu teey ak jëf lu baax mooy doomu aadama bu lekkee lu teey rek mën a def lu baax jëmm ji bu dee la ko dundal lu teey la kooku jëmm la joo xam ne yàlla mën na koo nangu boole ko si soppeem ak ñi nga xam ne ni ñoo koy liggéeyal su boobaa dana mën a def lu baax su defee lu baax nag ruux gi dundee dund googu lii yàlla xitaab la bu mu wax ak yonent yi waaye boo xoolee ñun ñoo ko moom ndax yonent lañ leen digal ñoom ña ca lañ leen tere it <coughs> danañ ko baax mais yàlla ñoom la ko njëkk a digal door ñu ko digal ñun. loolu ne ko digal lekk leen ci teey te ngeen jëf lu baax soo lekkee lu teey sa jëmm jooju <coughs> la ko dundal lu teey la comme que la ko dundal lu teey la nag jëmm la ju yàlla di liggéeyal yàlla jëmm la joo xam ne yàlla mu nekk soppeeb yàlla ndax la ko dundal yëpp lu baax la su boobaa dana mën a def lu baax jëmm joo xam ni teewut lu xaraam lay lekk ba màgg dooleem yëpp doolee lu xaraam la ndax jëmm jooju yàlla na pour nekk dugg ci pay bi yàlla yàlla dafa tey du nangu lu may du tey lu ngi ci déggee ne boo lekkee lu daganut doo mën a jaamu sa borom mais yàlla soxlawul la dafay bàyyi nga nekk soldaari iblis yi parce que yow sa jëmm ji jëmm ji woon la yàlla na ci yàlla musal tax mu ne yéen yonent yi lekk leen ci tey ngeen def lu baax waaye yenn yi lañ soxla mooy la dundal seen jëmm ak la dundal seen rox loolu moom ñu ngi ca فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جميع الله كلوا لك لن من تيبات ما رزقناكم تيتين لن ورسق لن تتك أشكروا لله فما متبش لاجي كلوا من تيبات ما رزقناكم أشكروا لله أن ين سند سن برم إن كنتم إياه وتعبدون مري ممرين جاو لا ين جميع الله ين لك لن تيتين لن ورسق لن lu leen amut bu leen ko sàcc bu leen tiriyan bu leen naxante la leen yàlla wërsëgal xem leen ci loolu ngeen lekk ko ni yonent yi war a lekkee lu dagan noonu ngeen war lekkee lu dagan su leen yàlla mayee nag seen jëmm yi lekk ba suur na ko sant sant ko mooy ngeen dem jëf jaamu ko waaw ma saalihan foofu rek shukru imalu ala daawuda su ngeen lekkee ba pare da leen sant yàlla mooy ngeen jaamu jikko Hmm? Hmm. kon yàlla dafa digal yonent yi ñu lekk lu teey te jëf lu baax noonu la digal nit ñi ñu lekk lu teey te jëf lu jëf lu baax mun nag mën nañoo lekk lu teey lu dagan waaye ni ñu war a lekkee lu dagan suñu yaram noonu la ñu war a lekkee lekkale lexalee ruux gi lu lu teey te moo ñu jaamuñ suñu borom ñun mën nañoo ñàkk lekk lu teey mooy di dundee lu dagan waaye dañ xam ne suñ ko defee yàlla du ñu nangu pour ñu nekk jaam yi koy liggéeyal parce que ñu yàlla jégal boppam mooy ñu sell ñi parce que moom dafa sell kon du nangu lu mooy ku teey loo ci déggee suñuy dundee lu xaraam yàlla soril ñu boppam suñu soralee suñu bopp ruux gi du mën a dund du mën a dund lu lu dagan lu xaraam lay de ay lëndam mooy muur ruux gi rek boo ruux gi fàtte yàlla su ko defee nag lan lañu tabax si ñaari xaddis yi mooy doomu aadama bu dundeewut lu xaraam ñaareel du mën a def lu baax te su dundeewul lu lu baax te ko ay problème dana wàcc ci kawam ak ay jafe yoo xam ne nii dana ñaan yàlla ba sonn yàlla du ko faale parce que dundeewul lu xaraam dundeewul lu dagan lu xaraam lay dundee moo tax dana ñaan yàlla ba sonn yàlla du ko faale tey nag loolu moom fees tëb réewu jullit boo dem da gis ñoo xam ne ay jullit lañ waaye xàmmeetuñ alal ju dagan ak ju daganut dem nañ sax bay wax ne alal kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti man ngaa gis léegi nit am ay milliards ci digg bu gàtt fekk si ay njubla nga ak tappale rek ci la ko amee bu ko defee nag ngeen ne milliards yooyu na ci def lu baax na nekk nit ku baax yàlla soxlawut kooku parce que teewut boo dundee lu teewut yàlla soxlawut la du la tànn sa alal jooju xam nga maanaam nit ñi nga mën a nax mën nga am alal ju bëri nit ñi jël la taf la seen bopp def la xarit fonk la yëkkati la loolu mën naa nekk mais alal lu moom yàlla du la faale parce que teewut hmm. yàlla du def loolu nit nak man nga naxante ma allu tiaxan mom sama xamne mu li allu tiaxan la way mu bëgg ci alal ji intérêt tax mu mu yëkëti la la wax mu ne waaw wa yalla du ko def imagine léegi ben kilifa bu taxone fi léegi ñaar nit kenn ki du ba di ku bax di jaamu ko ti yalla di ku sel kenn ki mom dem naxante sa ci amal ju bari mu mu jël ko fal ko wax du def wala suñu naxantee ba am alal ju bari ñu seetaan ko xamal na nit kooku yàq lay nekkee ci kaw suuf bu ñu bëri melee noonu nag jamono dana bari ay musiba ak ay jafe-jafe te su boobaa danañ ñaan yàlla ba sonn yàlla du fare faale commerçant yu bëri <clears throat> la fàggu mën naa teey mais fàggiwuñ bi yu si bëri du tere da nga gis commerçant xam ne danaa man diine commerçant laa yore guddi laay julli hmm? teewut façon fàggiwuñ bi teewut hmm. waaw xam nga maanaam si misaal rek boo doon lekk lu boo doon togg lu teey xam nga ganaar teey na ganaar tee na même nu noo koy toggee kenn du ko lekk façon toggin bi moo teewul mais jëmmi ganaar ji moom tee na waaye di togg ganaar di ñendoog sa loxo yi salte ah ubbi cin bi microbe bu lu ne mën a dugg ci biir nga baxal noonu rek yàq génne nii ne ma lekk ganaar booy liggéey te seetloo noonu la mel mooy yàlla yooyu taqara yooyu nekk ci yow mooy tax loolu laal du barke du am njëriñ tooke lay doon ci yow kon sa warul tax nga xaar bu guddi nga door boole sa julli yëpp di ko di ko jullee loolu da xam ne loolu ngay fàggu teewut wala boog nga boole si loo xam ne wóor na la li naxante la tappale la jaay kër yi xam nañ ko wóor na la li tappale la nangam nga jëndee lii nga dem wax ne nangam laa ko jëndee ñu wax nga ne système baal tënk marché baal tënk système yàlla bi ak système marché bi bu ci gën a fort naka nangoo système marché bi tënk te gën a màgg nekk fi bu nekk nga ne allahu akbar bu yàggee ngay gën a màgg nangu beneen système di tënk te système yàlla bi nekk fi toujours nga naan allahu bul waxati allahu akbar ne système bi <laughs> akbar boo gëmoon ne allah akubar système yalla bi moo lay teunk ci fo mën ci mëna am nak nga xam ne la yalla yàlla sédd waaye bëgg alal ju bari du tax nga top système boo xam ne baaxut yow boko topé keneen top ko keneen top ko keneen top ko bu yagge lu ñu defal yalla bu yagge ñu dindi fi sharia le nan système bañu teunk mo taxit façon fàggun yooyu ci la bu fekkee loolu moo fees suñ marché yi moom lañuy dundalee njaboot gi loolu la ñuy dundee bu yàlla wàccee nattu suñ ko ñaanee ndax danañu faale déedéet duñu faale nga demati ci banque yi fële ñëpp dañ seen xaalis ribaar lañuy ñuy dund lewal la benn fayeku ñaar intérêt rek saalal yépp ci banque nga ko jëlee dem leb banque ñëw liggéey di di teg intérêt faalewutoo yàlla parce que yow bëgg nga avancer rek dangay am sax loo dundee am lu ne gàññ sax teewul yaa dàq leb banque ba ci kilifa diine yi sax du ñàkk léegi ñu am ñu leb banque waaw bu ñu waxee ñu ne système baa ñu tënk te pourtant am na ñu dundee kat bëgg ndooloo rek. su fekkee léegi jamono dem na ba mel noonu kan la yàlla nangootu ci ñun kenn parce que ñu ñëpp teewuñ dundeewuñ lu teey buñ dundeewul lu teey jëf lu baax jafeñu buñ dundeewul lu teey jëfuñ jëfuñ lu baax problème wàcc su problème wàccee luñ ñaan ñal yàlla duñu faay yonent yi nag ñoom yàlla daf leen digal lii rek lekk leen lu teey def leen lu baax waaye ñoom ñu ngi ca hmm. yàlla daf ñu bëgg woon na yéen da nga leen war a roy moo tax lam digal yonent yi moom la ñu digal waaye ñoom li ñoom daa ñoom ñu yàlla sax leen ko digal parce que ñu ngi ci ñoom su ma zakarat topp yonent tudd arajula góor ba waxee lii yu tiilu góor goo xam ne mu ngay guddal ak safara tukki achas góor gu cuxur bopp axbar góor gu pënd yaram yamut du ma ngay tàllal yadayhi ñaari loxoom ila sama jëm ca samaan naan yaa rabbi yow sama borom yaa rabbi yow sama borom wa mataamu te lu muy dundee te ñamam wa mataamu ñamam xaraamun lu xaraam la wa malbasu la mu boo ko xoolee xaraamun lu xaraam la wa xuziya te dundalee nañ ko bil xaraam yi ci alal ju xaraam bu la neexee sa teg si ne dëkk sax dafa xaraam wa masrabuhu wa masrabuhu naanam xaraamun lu xaraam la wa malbasuhu te lam sol xaraamun lu xaraam la bu la neexee ma ne nga teg si ne fa mu dëkk sax dafa xaraam wa xusiya te dundalee nañ ko bil xaraam yi ci alal ju xaraam ay yaayam ak baayam sax alal lañ ko nàmpale moom mu màgg it ci alal lu xaraam di ko dundee di ko naan di ci sol di ci dëkk yàlla nee na fa annaa yustajaabu nan lañu ñu nangolee lahu ñeel ko kooku nu ñuy nangoo ñaanam lii dafay wax ne xeet wuy dundee lu xaraam danañ ñaan yàlla ba sonn yàlla du leen faale bu ñemee ba sonn ba jaaxle buñ weddu ci kenn ku dul yàlla ndax yonentu yàlla daf ñu waxoon ne yàlla nee na yonentu def ne taarraf ilallahi fi raxaa'i bu yombee xamal yàlla bu bu jëfee yàlla mën laa xam mm-hmm. waaye mu yomb nga fàtte yàlla di lekk lu xaraam di naan lu xaraam di def lu la neex nga bëgg ne bu jafe-jafe ñëwee yàlla nee na bàyyi xel moom it dara boo ñaanee du la faale li nga yàlla nag moo gën a am ful la ñëpp de moo tax wax na ne ku bëgg a dajeeg yàlla yàlla bëgg naa dajeeg yow ku bëggu su dajeeg yàlla yàlla bëggu dajeeg yow am fulu de buur bu baax la nag waaye ni mu baaxee noonu la mbugalam tatee te dafa bokk ci lam ñu jàngal ne ku koy def ma da nga dajeeg mbugalam te boo dajeeg mbugalam boo ñaanee du la faale li ëpp mooy lii di dundee lu xaraam soo ci nekkee bu musiba ñëwee mboolem sabab yi waral nangu ñaan bu dajee séewit boo ñaanee yàlla yàlla du la faale ndax xadis jàngal nañu ne ñaanab kuy tukki yàlla daf koy nangu kii ci tukki la nekk am na sabab buy waral nangu ñaan ñaanab ku cuxur pënd kooku kuy toroxlu la ku toroxlul yàlla mu tar la ku loru ama yujibu duaa al mutarri ida daaw ku loru yàlla daf koy nangul ñaan kii loru na mu ci tukki tukki mu sori te sax borom xam-xam yi waxuñ tukki kese la de tukkim jihaad la dafa tukki ngir jihaad yi ngir xaj yi wala ngir ziyaare lu baax tukkim kuy jaamu ji yàlla la nekk waaye la muy dundee dafa xaraam ndax yàlla faaduwul jaamu yàlla mbir kon boole ne nekk ci tukki. tukki rek barab bu nangu ñaan la ñaanam kuy tukki yàlla daf koy nangu boole na toroxlu ci tukki moo xam ne tukkim jaamu yàlla yàlla faluwut ko mu tàllal loxo mi te yàlla wax na ne yàlla ku am kersa la ruus na jaam di tàllal loxo yi muy delloo ñaar loxo yi jaam bi di sooy kii nag tàllal na ñaar loxo yi naan yaa rabbi yaa rabbi te yàlla ku ku ku tudd turam mu tudd la kii tudd na tur yàlla xoo ko nag yàlla dafa ne. Eh, aji uji ujibu daawata daai isa daani ma xoo ma ma nangul la kon yaa rabbi yaa rabbi bara bu nangu ñaan la yooyu yëpp mu ngi koy wax yàlla ne nan laa koy nangulee ñaan taran lam la muy dund ñamam bi dafa xaraam la muy naan wa la muy sol dafa xaram ween wi ko yaayam nàmpalee sax soomu xaraam fa nekk kook nu ma koy nangulee ñaan léegi ñun ñu yaakaar ne mën nañoo jëflanteeg banque bi ñun ñu yaakaar ne mën nañoo wutee xaalis nu ñu neexee ñun ñu yaakaar ne riba mën naa dugg ci réew mi nu ko neexee ma ne waxuma la sax commerçant yi nangam de mais réew mi sax xaalis ba ñuy leb di ko dugal ci biir réew mi day am riba banque yi dañuy lebal réew yi carrément xaalis boobu moom lañuy ñuy tabaxee réew mi. suñ lépp riba foofu ndax kenn dafa ñaan yàlla yàlla nangu ñoo xam ñoom ñëpp riba la ñuy lekk seen président ba suuf danañ tàllal suñ loxo di wax yaa rabbi yaa rabbi ba sonn yàlla du ñu misaale <coughs> kon doomu aadama yonentu mooy royukaayam boo gisee yàlla tudd yonent yi sant leen lekk leen du teey te ngeen def lu baax te wóor na leen ñoom bu leen neex bu ko wax sax du leen sant def leen lu baax da danañ ko def daf ñu bëgg war na yonent yi amoon nañu ñàkkoon te taxutoon ñu dugg ci lii ngeen dugg kon roy leen yonent yooyu su ngeen ñàkkee ngeen lekk li ngeen am yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam demoon na ba xiif bi takk biir bi loolu defut ko rek par hasard daf koo def pour won xeetam ne ñàkk warut tax ngeen dugg ci lu xaram daana wax na ne wërsëg bu yéex bu mu leen taxam mooy yàlla li nekk ci yàlla topp ko rek ci ngeen ko mën a amee wërsëg bu yéex bu la taxee mooy yàlla yit du tee la nga waroon am rek ngay am waaye dana am ak yàlla jéppi la ba boo ko ñaanee du la du la faale kon xadis bi mu ngi ñaax ci ñuy lekk lu dagan di naan lu dagan di sol lu dagan di ñaax waay juri ñuy dundee lu dagan ndax bu ñuy nàmpal seen doom nàmpal leen soow mu dagan si di day wàlle yow mi nàmpal xale bi ngel yërëm ko bu ko nàmpal lu xaram kon kenn ku nekk na nekk lu dagan lu sell loo xam ne amul benn lënt bu ci bu ci nekk daam jaam nag suy lekk lu dagan yàlla daf koy dimbale muy man di def lu baax di man di jaamu boromam yàlla mën a nangu jëfam ndax yàlla du tànn ku teewut kuy dundee lu xaraam di ko def liggéey katam moom suy lekk lu bon loo xam ne daganut musiba lay doon ci kawam rek toujours muy am ay problème yàlla dootu nangooti jëfam su jaaxlee ba jaaxlee dana ñaan yàlla ba sonn yàlla du ko yàlla du ko faale moo tax yonent nee na tudd góor goo xam ne moom yonent bi mu ngi cuxur cuxur rek loru la loru rek sabab la pour yàlla nangu ñaan mu ci tukki tukki rek sabab la pour yàlla nangu ñaan mu ngi tàllal loxo yi yàlla rus na jaam di tàllal loxo yi mu di ko delloo waaye kii moom rusu ko ndax dafa bon bopp mu nag yaa rabbi yaa rabbi yàlla faalewut ko lu tax faalewut ko ndax ñamam dafa xaraam la muy naan dafay xaraam lu muy sol dafa xaraam léegi loo xam nag si koo xam ni moom la mu ngi tooñ jaami boole koog dundee lu xaraam kooku bu taal tàllalee loxoom ñaan yàlla loo yaakaar yàlla du ko faale du ko nangul ñaan teewul nag mën na see seet ku ko neex ñaan mu nangul la waaye daal li ëpp bu ku mel nii moom li xadis bu wane mooy yàlla du ko du ko faale du ko nangul ñaan yàlla incha allah musal xadis ñëw na ne léeg-léegi nit dana pënd cuxur bunt ba mu dem ñu ne ko aywa ci bitti te lu mu wax yàlla def fii xadis bi wane na ni dana euh, pënd cuxur ñaan yàlla yàlla du ko faale kon mbir mi du si pënd ak cuxur mais si jikko la man ngaa gis ku cuxur pënd fekk wala yàlla lu mu wax def waaye fii moom war gis ku cuxur la lu ñaan yàlla du ko faale hmm? Hmm. kon mbir mi du si cuxur du ci pël du ci set du ci dara yàlla mooy tànn jaamam bu ko neex melokaan bu neex yàlla rek mën na ko melal jaam boobu kon xadis la woo xam ne daf ñuy sant ci ñuy lekk lu dagan même bu dee ñaat dërëm la <laughs> ndox bis dana ñëw ñu bàyyi ko fi lekk lu dagan loolu dana ñu dimbale yàlla tànn ñu dugal ñu ci payam bool ñu ci ay liggéey katam su boobaa loolu ñu dimbale ñu mën def lu baax su boobaa loolu dana tax saa yi ñu ne yaa rabbi rek yàlla jox ñu lañ koy lañ koy ñaan waaye buñ mànkoo àddina yëpp di lekk lu xaraam kenn waxut loolu moom xalaatuñ ko tuub sax léegi gis nga tuub yi ñuy wax nii ni nga gis tuub yi tuub lu xaraam boo ko gisee kenn xalaatu tuub ba toj banque yi jàpp nañ léegi àddina bi système bu xaraam lañ mën a dundee pour ñoom bank yi yahudi yaa ko fi pour lan pour lekkloo jullit ñi alal ju xaraam force lu ñam am doole ñun jullit ñi jéemuñ ci dara jullit ñi yàlla may leen doole de ñoo jéemut système boobu noonu pare wuñ pour dindi ko fi kenn pare wuñ pour dindi ko fi boolu wuñ ko ci tuub gi waaye nag lu mu néew néew yow jullit bi na la naqadi yow système boobu boo ci amoon pexe na la naqadi boo ci amoon pexe yi maa def ba mu dañ fi na na fi dañ suñu amoon yéene boobu tey góorgóorlu ci yu dagan amaana suñu ñaanee yàlla nañu faale إن أريد إلا الإسلام ما توفيقي إلا بالله يعني توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث به رواه مسلم إمام مسلم